abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokk internet yu partout TV mbir mu doy waar daal di jot a xewet rek ci gendarmerie nationale euh, bi la yoon nag mën nañ ñi jëyee la daal di doon foofule ca diwaanu Koumpentoum euh, li ko waral nag du leen lu dul rek gannaaw benn intervention boo xam ne rek ñi di takk der yi ñi ngi ci doon dem ci la benn véhicule daal di jot a rek renversé wu ci kaw benn gendarme boo xam ne rek mi ngi taxawoon ba mën nañ nag ca la daal di jot a jaaree ñàkk li nga xam ne rek moom mooy bakkanam di mbir moo xam ne rek mbir mu. doy waar doy waar la euh, fii ci biir réew mi di Sénégal gannaaw nag borom oto boobee nga xam ne rek daal dinay jot a def jëyee ci ni mel yoon daal di commencé nag di def liggéeyam foofale ca diwaanu Koumpentoum mën nañu sax gendarme bi moom it ñàkk bakkanam ca saa sa di mbir mu doy waar moo xam ne rek jamono bi ñu toll nii daal nañ koy jot jot ko ay xibaar nekkat mbir yi ni mel léeg-léeg dañuy faral di seen muy xew ci kaw tali bi nekk nag loo xam ne rek lu jaaduwul takk der di amlante ak suñuy sëfoor ci kaw tali bi tax naka lu ci bare bari rek am ay jéey yoo xam ne dañ koy faral di nemmeeku muy am bi da yoon nag bi mujj si gendarme bi da si jaare nag ñàkk li nga xam ne rek moom mooy bakkanam loole nekkoon li gënoon a fees di leen di jaajëfal ci topp gi way leen di abonné saa su ne sur ma chaîne Partout TV